parce que da ngay xool euh, Bruno Diatta il a traversé tous les régimes. ñoom euh, parce que euh, nekk politicien am na foo xam ne dafa am limite. Mhm. loolu dafa dafa dafa dafa am dafa am ay ay limites. je crois que comme fekk nga fa ñoo xam ne mën nañ koo def wàcci leen ak ñooñu parce que mbir mi il faut nga xam ko aussi une simple bonne volonté rek ne suffit pas. Mhm. doyul doyul ay protocole am na fa. bon. Euh, gis naa ko keroog parce que ñooñu euh, président bi kam il a besoin d'être bien encadré. Mhm. ma ngi doog ci ñëw ci. mu sa nekk ministre mu sa mhm. nekk lenn. il faut ñu jàngal ko yu bëree pare il faudrait mu ànd ak ñoo xam ne loolu nag am na fa ci ci gendarme yi ci militaires yi am na gouverneur euh, militaire am na chef d'état-major particulier yi am na aide de camp et yooyu waaye am na ci yoo xam ne xam nga les civils là. Mhm. léeg-léeg ils sont un peu envahissants. envahissants. bon ci protocole bi dinaa ci wax leen aussi. oui euh, ci cérémonial militaire quand même. Mhm. parce que boo ko xoolee euh, ni ñu koy defee léeg-léeg euh, dana dana dana am am ay failles daal gis naa ko. surtout cas gisagum nga ay failles déjà cérémonial militaire c'est c'est pas très grave sax. mais xam nga ñoom les autorités civiles la bu fekkee la première fois mosu ñëw passer wu mosu ñëw def leneen nga ñëw dugal leen ci rek man mën na la kii. Mhm. par exemple d'abord bu fekkee ne eh, ñu ngi ñëw ci drapeau bi di ko saluer. am les les les les les les les nekk seen gannaaw noonu seen taxawaay attitude bi ñuy taxaw rek euh, dañ ko dañ ko dañ koo réglementé. d'accord bon en en en en général ils savent pas se mettre au garde-boue. Mhm. parce que keroog j'ai constaté que dafa dañoo taxaw nii rek. Euh, euh, kii tànk yi tànk yi tànk toog noonu lay daal naturellement. yooyu yëpp ñu war a corriger